moo xam alxuraanul karim wala xam-xam ci bépp téere bu munti doon li ci gën a neex mooy oustaz Mouhamadou Konté yemul foofu yow mi am jàngoro bu munti doon oustaz Mouhamadou Konté moo ci aay ndoxum siti jàngoroy kajoor imorit faiblesse sexuelle yow mi góor mbaa ngi jigéen bëgg sa néegu sëy di neex dawal seeti oustaz Mouhamadou Konté ma nga nekkee géejuwaay rond point dalal jàmm soo bëggee jokkoo ak moom defal ñu 70 796 24 89 wala nga def 77 330 17 58 oustaz Mouhamadou Konté daal faj ajo moo ci aay. laata ñuy door revue de presse bi nag ñoo ngi ñaanal ñëpp fête bu neex feetu jàmm ak salaam rawatina sunu mbokku chrétien yi ci Noël bi ñu nekk yàlla nañu yàlla may ñu teewee déwén fekkee ko tetal. laal ko laata ñuy door revue de presse bi nag ñu fàttali leen tey dimanche la journalu Sénégal yi benn ñëwul waaye fii ci réew mi démb Ligue 1 ko doon football am na nag ay résultats yu ca tippee la Linguère de Saint-Louis moo doon jàkkaarloo ak Sinéwor match boobee ndam demul ndam dikkul 1-1 la jeexe stade de Mbour doon jàkkaarloo ak AS Pikine match boobee tamit ndam demul ndam dikkul 1-1 la jeexee tey ji nag match amul soxal lig 1 fii ci Sénégal ñu door revue de presse bi dooree ko France fek fa l'équipe Lionel Messi la poule ga la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Messi ma nga ca biir mbégte woo ay xaritam ñuy fetu ca Rosario nekk ca réewu Argentine ku ci mel ni Luis Suarez Iniesta Piqué ak yeneen xaritam yu bari la woo foofee ngir mbégte mi nga xam ne moom la nekkee jamono ji mu bokk ko ak ñoom waaye journal bi nee na Ligue bi nga xam ne bëroon na maanaam poosoon nañu dem ca coupe du monde ba léegi ñu jëlaat ko ndax àllarba bii di ñëw muy mercredi incha allah la ñuy dooraat Ligue 1 boobee kon balaa yàgg star yi dinañ leen gisaat ci terrain bi ñoom kiliyaan Kylian li Lionel Messi Bamba Dieng Pape Alassane Gueye ak yeneen joueurs yi nga xam ne ca Ligue 1 boobee la ñuy football jugee France wutali Portugal fekk fa oxoogoog Celso Conceição la journal bi fësal ca wu njëkk wa kii nag mooy tàggat FC Porto waaye journal bii di oxogo ak ñañu àndal ca liggéey ba moom la ñu tànn mu doon jëmm ji gën a xarañ ci wàllu tàggat yaram ci réew moomee di Portugal muy serso Sérgio Conceição li ko waral moo di liggéeyam bu rafet waaye moom wax na nee na bég na ci raaya bi nga xam ne jox nañu ko ko waaye laaj nañu ko tamit ne ko yow président wu FC Porto daf la wóolu lool te nee na doyloo na la nee na loolu nag mbégte la ci moom ndax di liggéey ak nit mu yëkkati kàddu ne bég na ci yow te doyloo na la loolu mbégte ñu ne ko yow nag fii nga nekk ban départ moo la fi gën a naqari maanaam ban jour moo fi jugee nga koy naqarlu mu ne Luis Diaz mi dem ca Liverpool jógee woon fii ci Porto métti na ma lool waaye bi mu demee nag bunt yu ubbeeku na yeneen gone ñëw te gone yi fi nekk tamit ñoo ngi doxal Sergio Conceição moo yëkkati kàddu yooyu ci fàttali moom club boobee di Porto ci atum 2017 ba léegi moo leen di tàggat te club bi tey lañu ko gën a wóolu ndax liggéeyam bu rafet ñu jógee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay classement Liga Santander bi le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ginnaaw coupe du monde bi jeex na léegi dooraat Liga Santander bi loolu la journal xam le waaye Liga Santander bi nag xeex bi ca kaw ñaar ñii la muy Barcelone ak Real de Madrid jamono ji Barcelone moo jël pee Real de Madrid jël deuxième waaye xeex bi jeexagut kon léegi tey balaa yàgg dinañu ko dooraat waaye xeex bi nag ñaar la ndax am na club yoo xam ne bëgguñoo wuute Europe moo xam Ligue des champions la wala Ligue Europa mën nañu caa lim Atlético de Madrid Betis Séville ak yeneen club ñoom li ñu bëgg moo di xeex ngir mën a dem Europe waaye club bii di Séville ñoom ñoo ngi ci jafe-jafe ndax ñoom ba léegi seen toogaay beggandiwul dara ci Liga Santander bi li ko waral moo di ndorte saison bu bon bi nga xam ne amal nañu ko. loolu sax moo tax ki leen doon tàggat ñu dàq ko muy Julián Lopetegui jamono ji Jorge Sampaoli di doomu Argentine mooy tàggat club boobee waaye surnal bi nee na liggéey bu rëy nag mi ngi koy xaar bu ñu dooraatee championnat bi ndax toogaayam beggandiwul dara bu dee waa Real de Madrid ñoom ajjuma la ñuy football vingt heures et demi bu dee waa Barcelone ñoom derbi la ñu am samdi bu une heure jotee ki ñuy jàkkaarlool moo di Espagnol de Barcelone match boobee sax ki ciy wax moo di José Lu nag ma ngay football ca Espagnol de Barcelone nee na ñoom ñoo ngi waajal match bi waaye xam nañu ne du yomb ndax Barcelone du club bu ndaw te derbi la samedi dina saf sàpp José Lu moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay capitaine u Atlético de Madrid bi di koke le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa séq ak moom waxtaan bu yaatu wax na ci équipe nationale bu Espagne nee na Luis de la Fuente mën na am wërsëg bu yaatu def jaloore ci équipe nationale bi li ko waral moo di am na xale yu mën a football kon ëllëg mën na def jaloore ci équipe nationale bi wax na tamit ci Atlético de Madrid gi nga xam ne fa lay football nee na jamono ji nag club boobee ñoo ngi ci ay jafe-jafe waaye nañu dellu ginnaaw tuuti ndax fukki at ci ginnaaw Atlético de Madrid kenn xamu ko woon te Atlético de Madrid ñëpp dinañu ko ràññee maanaam ñëpp dinañu xam club boobee di Atlético de Madrid nee na nag xeex bi jeexagul ñoom ñoo ngi jëmbat fulla ngir bégal supporters yi nga xam ne ñoo bëgg Atlético de Madrid ngir ñuy dégg seen club bi fi ñu ko bëgg a dégg waaye wax na tamit nee na atum 2023 li mu ci bëgg moo di gagné ci ay coupe koké moo yëkkati kàddu yooyu wax na tamit ci coupe di monde bi nee na Messi jël nag mérité na ko koke moo xamle loolu. waa Barcelone tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag gone yii la ñu yaakaar ngir jël Liga Santander bi muy gone yii may waaj a lim Gavi Pedri Ansu Fati Araujo gone yii ñoo yor caabi ji ngir jox waa Barcelone Liga Santander bi ndax gone yii mën nañu lool la ñuy def te suñu duggee ci terrain dañuy jëmbat fulla Barcelone tamit am na lool yaakaar ci ñoom ëllëg ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Robert Lewandowski la journal bi fësal ca wu njëkk wa joyeux Noël la wax waa Barcelone nee na képp koo xam ne da ngay bégee Barcelone rek maa ngi lay ñaanal fête gu neex waaye Robert Lewandowski waxtaan bu yaatu la séq ak esport bokk bokk na ci li mu wax moo di moom nee na dafa bëgg supporteru Barcelone yi bég ci club boobee te ñoom ñoo ngi xeex ngir bégal képp koo xam ne supporteru Barcelone la waaye nee na bi mondial bi jeexee ba mu ñibbisi ca Barcelone dafa mel ni ku ñëw këram ndax Barcelone këram la ko jàppee muy Robert Lewandowski. nee na club bii di Barcelone nag club bu mag la te loolu man bët bu set dama koy gis ndax Barcelone ci lu mu dugg dina ci génn maanaam domaine boo xam ne Barcelone dugg na ci dina ko réussir maanaam dina ca génn ak grandeur loolu la Robert Lewandowski xamle dénk ko journal bii di esport ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it Lewandowski la dalal seq ak moom waxtaan bu yaatu bokk na ci kàddu yi mu njëkk a yëkkati moo di ñun waa Barcelone nañu def ci suñu bopp yi ne ay champion lañu te club bu mag ci la ñu nekk li ñu war ñun joueurs yi moo di jëmbat fulla ngir jël ay coupe ci club bi di Barcelone waaye nee na moom feeg mi ngi football di bëgg a jël ay coupe ca Barcelone googee lay nekk ndax xam na ni Barcelone club bu mag la te club bu bëgg ay coupe la kon feeg mi ngi football bëgg di jël ay coupe ca Barcelone lay nekk. waaye nee na bu saison bi jeexee ca Liga Santander ba mu dugal trente bit ci benn saison loolu dina ko neex lool wax na tamit ci Ballon d'Or bi nee na Ballon d'Or bii di ñëw moom. am na borom ñu ne ko ku ko moom mu ne Lionel Messi ndax mi ngi def jaloore barki Demba Ndiaye la jël coupe du monde kon ballon d'or bii di ñëw Lionel Messi moo ko moom Robert Lewandowski moo yëkkati kàddu yooyu. gaa ñi rofi de presse bi foofu la buuree waaye ñoo ngi leen di jéggalu tey Italie jotuñu ci.